faloon yow yéen ko voté loon moom kese moomu ko de exactement mhm. waa APR ak waa Bennoo ñoo ko moom ñëpp ko kon nag bu fekkente ne moom dem na xëy na am na ñu muy yóbbaale am na ñu dul dem mhm. exactement mhm. waaw waaw waaw voilà kon kon 34 yi nga amoon doyul bu dee si moom nga bëgg a sukkandiku du la yóbbu doo yóbbu doo dem exactement moo waraloon Macky Sall quand en 2012 xam na ni vingt six pour cent la amoon au premier tour mooy si Bennoo parce que Bennoo moo ko permettre mu am soixante-cinq pour bien sûr bien sûr léegi Euh, Amadou Ba. Mhm. créé une dynamique. Mhm. nee dina def tournée nationale. Mhm. waaye tournée nationale ba ma koy suggérer. mooy dem na moom na tournée au niveau des chefs religieux. parce que nous, du tournée. Par chef religieux boo dem mu teral la tagtagal la daral la. te lu mu lay wax lay lay wax sa morom. mais exactement. te lu mu lay wax lay wax sa morom. parce que man bi mu commencé ba mu commencé pré campagne. Hein? mais maag yow boo ñoo si bokkoon. waaw ko ba mu pré campagne ay mais yow kii il est en train de perdre son temps. na dem vers les populations. rawatina si ndaw ñi. waaw parce que da doon tappale day tappale rek. waaw léegi nag. day joué. Euh, ci foofu laay terminer. après ñëw na ci kii bi. xam foofu laay ah, terminé waaw parce que man noonu laay jaaraale <laughs> waaw léegi lu ñaaw na dama lay jox dama lay jox dama lay wax damay damay damay dama lay man damay jox sama kaa hmm. man xaw ma yeneen kaa yi hmm. man ma yeneen kaa yi ah, sama ñaari une yi ma ko jox nii hmm. man maa xam lu tax ma jox ko ñaari une yi mais lu tax ma may ko ko man damay guerre koy guerre man kuma bëgg ray koku lay guerre. moy kan. ah. ah ki fi ne. kan la xolam bon tay <laughs> man lu la métti rek lay def. man sañ mako wax xam nga man buma duggalé sama ki Boy positif yi dañoo naaw. ñaata lañ la jox sen journal bi kan moko mom ban proso Amadou Ba man leen wax leen lu leen neex. man sama journal xamna ko ko mom hmm? mais man kenn duma wax li ngay bind. xolal waa ji nee na dafa jóg pour rey presse bi. man du ma la jox paaka bu ñu may reyee. dëgg la loolu lay métti matin midi soir moom laay def. ci nga ne dégg nga ca salaay ne man moom man sama xeex man du ma nëbbutu de. man sama xeex du ma nëbbutu du ma def équilibre équilibrisme dégg nga subaa. ah du def dara xolot waa ji Ousmane Sonko moo ñu déclaré la guerre. Mm-hmm. ne dafa am journal yu bokk opposition. Mm-hmm. ak journalu projet bi. Mm-hmm. man journal opposition laa yor. Mm-hmm. man lépp lu may def matin midi soir. samay page samay réseaux sociaux. samay waxtaan ak lépp mooy moom mu jël. Mm-hmm. nëbbutuñu ma de. léegi nag Doudou. du fa jaaree rek. waaw waaw waaw nga faa jaaree. Mm. foog ñu dugal tuuti ci dissolution bi entre parenthèse xam nga temps yi kan laa faa Mansour Faye. mu ngi nga xam ne. Euh, euh, normalement ñii seen seen mëbët mooy njëkk ko diri ca ca parquet financier ba hmm. man damaa bëgg ko am fict hmm. Mansour Faye moom dëgg-dëgg waa waa APR ñii wala benn bokk yaakaar ku ci ku ciy wër leader moom bu yow nga dem la ngaamu ndax Mansour Faye mi ngi wane ci oppos opposition bi moom doomu moo ci wane personnalité jom ak fulla ak fit ndax mi ngi mi ngi koy roqas ñii bu baax léegi la bind fii tamit man ba ñaa ba temps sama commencé suivre. <laughs> léegi la bind Twitter wala page Facebook am. page Facebook am. Mm-hmm. nee na par jour mi ngi xeeñ. waaw te dafa ñëw ñu dugg sunu suñu sujet. waaw Mansour Faye de ah Mansour Faye temps yi bëgg naa ko. nee na par jour mi ngi xeeñ. par jour nag daa am conséquence. daa am conséquence wax wax nañu mm. fi keroog nee na scénario ba tey Mansour Faye. Mm. si devant beau frère de de Macky Sall.